mais Sidath dañoo seetlu ne yow euh, foofu ca télé Futurs Médias gën nañ la gis ci télé bi parce que daan nañ la gis ci yenn émission comme genre ay kakatar ak yeneen émission yoo xam ne daan nga fël mais seetlu nañ ne jamono ji gisuñu la fenn lu waral loolu ndax da am problème ak groupe bi non je n'ai aucun problème. lu tax gisatuñ la. lu tax gisatulee loolu mën naa wax ni yow yaay ñaateelu journaliste bu moo koy bu koy wax cent cinquantième wala cent. moo tax nag la nga wax ñu ko mu leer comme ça dootuñu ci ñëwaat. bon moi moi j'ai toujours dit que euh, télévision dafa am programme du dëgg te euh, dafa am ay responsable aussi euh, te man aussi employé rek laa donc ku ci nekk rek euh, yaa ngi bay sawaar ci côté ba nga nekk mm-hmm. euh, mu am loo xamante ni dafa am muy télévision Futurs Médias uh-huh. euh, di doxal donc man lu tax ma gëj a génn TFM mm-hmm. du du Sidaat mooy ñëw programme boppam émission TFM mm-hmm. du Sidaat aussi mooy programme boppam TFM TFM télé bu mag la boo xamante ni bu sénégalais yi bëgg di ko suivre euh, te it euh, mu nekk télé bu am solo ci biir réew mi euh, mais man Sidath Euh, heure bu ma woowee damay liggéey. waaw mais su ma woo mu ngeen ma gis. tey fii kon la woowul moo tax nga toog jàpp sa njàmbur. di liggéey ma ne kon dañ la woowul ci programme yéen ni moo tax nga toog. Euh, waaw sa wàll ba nga nekk rek. mais yéen yéen yéen a ngi seetaan yéen yéen a ngi gis. mais gisatuñ la ci kàkkatar. non kàkkatar. ak yeneen yu dul kàkkatar sax yow yow télé bi nga ci gis euh, desidaat. bon kàkkatar. Mhm. loolu je crois que wax naa ko ci benn. Euh, information benn wax naa ko ci benn euh, entretien bu ma def ak euh, benn journaliste Kakatar émission la bu am solo Bouba Ndour créé ko muy le producteur de l'émission Kakatar ma di ko nuyu au passage ba mu ko créé il m'a appelé ne ma naa ñëw liggéey ak moom ci projet bi mais projet bi lu muy gën di évoluer après dafa am Euh, yeneen affaire yoo xamante ni que bokkul woon ci projet bi ñu dugalaat ko ci biir Kakatar donc c'est son concept moo ko créé alors que au début ba ñuy tàmbali concept bi dafa am nu mu tëddee woon donc ñu dem ba ci biir euh, concept bi am leneen lu mu yokkaat donc leneen lu ci yokkaat euh, du dara loo xamante ni sax lu ma ci lu ma ci metti parce que tout le temps dañuy bëgg di gën di innover di gën di créer mais nit ku ne aussi ak. li ngay def na fekk nga sentir ko. kon maanaam loolu ñu yokkaat ci programme Kakatar sentiroo ci sa bopp. non sentiruma ci sama bopp. parce que xam nga lu tax la exactement xam lu tax. Mhm. man euh, yàlla dogal na ma je suis un doyen de la maison euh, man tey duma toog di génn di def yenn entretien yoo xamante ni wóor na ma ñi euh, ñi ñi ñi ñu bokkal plateau yi am na ñoo xamante ni moom ba may def communication ñoom xaaju ñu ci dugg. xaaju na cee bokk. ñu mel ni ma ëpp leen ci expérience. Mm-hmm. Euh, jiitu leen ci métier bi. tey ñooñu du ñoom lay dem di leen defal yenn euh, yenn affaires yi pour di leen ko jox ñoom parce que loolu tuutal sa bopp gënu tëree loolu. tey gis nga kon nit bu ne bu la nangulee sa ndaanaan. Mm-hmm. Euh, buñ la suufeel. Mm-hmm. buñ la naree suufeel nga xam sa bopp. kon yow da ngaa jàpp ne foofu dañ la xawa a suufeel wala dañ la naroon suufeel nga bañ ko toog jàpp sa njàmbur. non Euh, du noonu la sax euh, laa ko mën a waxee ndax ki créer moom moo créé du toutes façon façons mm. euh, ndax daf ma bugg suufal ou pas loolu je du loolu laay wax mais man en personne li ma sentir ak lu ma sentirul laay wax parce que man buñ ma tegul ci plateau mm-hmm. ma présenté wala ma bokk ci plateau bi am na ñoo xamante ni du man maay dem di leen defal yenn yenn yenn liggéey ci terrain bi ñëw di leen ko jox. waaw mais bu dee sa njiit la aussi moom moo jiite moo produire moom sa chef la bokk am na droit ne la Sida dama defal ma la le. waaw man je ne dis le contraire ndax yàgg naa ko def mm. mais dama ko yàgg defal ñi nga xamante ni que eh, bokk nañ génération mais aussi tamit ñu respecter suñu identité si dëkk bi xam nga tey mënoo gis ndaanaan nga bëgg wàcce valeur am ci suuf. loolu euh, ci gis-gis ak ci déggin ku ko gis sax da xam ne li warut mën a ne. kon mooy li ma waxoon rek dañ la bëggoon suufal wàccee la ak ndaanaan bi nga nekk ak doyen bi nga nekk. xam nga suma ma ne dañ la bëggoon suufeel mhm. mooy man kon dafay fekk ma xam seen intention. mais mënuma la ci wax loolu danga koy laaj ki nga xamante ni c'est le producteur. incha allah de l'émission dinañ jéem def j'ai l'habitude de diir que. Mhm. bu ngeen naree ñëw fii di ma laaj. Mhm. Sida gëj ngeen laa gis TFM wala soit gëj ngeen la gis nga def nangam. Mhm. allez demande ça euh, le directeur des programmes. dinañ dinañ laaj ko dinañ dinañ tax on ne voit pas Sida pour man loo c'est plus direct. Mm-hmm. moo gën ngeen ma koy laaj. waaw mais xam nga comme yow tamit fa nga nekk yow yaa xam lu tax aussi gisatuñ la mais ba tey nangul nañ la ko dinañ jéem a dox. <laughs> jéem non bu ma gisatulee moom c'est pas de ma faute. d'accord parce que man mm-hmm. j'ai des idées j'ai des concepts mm-hmm. euh, je suis un travailleur comme tout un chacun euh, xam naa fi may teg sama tànk xam naa li ma bëgg te it euh, lépp lu may def. yàkkamti boolewu ma ko ci. d'accord sànq ci sa biir wax yaa ngi naan doyen nga sax ci ci mbir mi. Mhm. te macha allah kilifa nga ci ndaanaan nga ci. mais dem na ba sax am na ñu naan ba fa DJ Boubs jóge vraiment ak ni fa Sidaat yàggee Sidaat mënoon na téye mbir mi na ko Boubs téye woon mais dañoo gis ne genre ñoom abaa yi nga xamante ne ñoo ñëw démb. am na tey lu ñu fa téye loo xam ne Sidaat ma fa nekkoon ca mille 1900 ba tey teewu ko ñoom Pape Cheikh ña nga téye loo xam ne Sidaat teewu ko waral loolu tax. <laughs> gis nga loolu nga wax noonu tamit pour man loolu du sama question loolu question responsable yi la parce que man je suis simplement son employé de la maison. est-ce que kon amoo problème ak ñoom njiit yi. non ban problème <laughs> aw ma benn problème ak benn njiit vraiment mhm. aw ma benn problème ak benn njiit te yàlla bu ma am ak ñoom benn problème parce que c'est ma famille mhm. j'ai que euh, mes frères là-bas. j'ai que mes sœurs là-bas et puis jàmm rek laa am ak ñoom au fait. Ah, kon lan moo taxoon euh, émission bi nga defaloon ak maam Góor Diazaka mu juróon indi woon coow tuuti. non loolu ça n'a rien à voir avec la TFM. loolu c'est la hmm. radio. c'est à part c'est c'est c'est hmm. loolu c'est euh, directeur des programmes la. c'est affaire entre directeur des programmes ak euh, mën naa wax ni ñu doon waxtaan. ci euh, émission xam nga kër goo gis mm-hmm. léeg-léeg euh, werante mën na am mais après mën nañ trouver un terrain d'entente. waaw parce que yenn saa aussi su werante yoo amee dañu lay gis parfois nga def ay sorties def say kii mais wax wax ba ba ba ne saaj ah, wax ay wax ñu xam ne kon si Sidath mii am na lu lu nekk ci xol bi wala am na lu ko metti man kañ ngeen ma gëj a gis. non ah, mais même bu dul boo ko deful daan nga ko def. <laughs> waaw mais écoute euh, nit bu ne nit nga bu fekkee ni que ñi nga war a waxal soit boo leen wooyee doo leen jot wala soit nga war a toog ak ñoom doo ko mën wala soit euh, mu am neneen ak neneen mu demee nit bu ne nit nga des fois je peux partager euh, mais les moments yi nga xamante c'est di moments difficiles avec les Sénégalais. ñi nga war a jot boo leen jotul maanaam njiit yi rek ba tey. mooy hmm? kilifa yi maanaam mooy say kilifa ca bërëb liggéeykaay bi boo leen mënul jot des fois mu tombé nag nga nekk ci situation war leen euh, jot doo leen mën jot wala soit nga dem euh, war a waxtaan ak ñoom mu xaw a jafe nga jaare ko fee wax li la metti non c'est pas mais ça dit je partage ok man je partage avec les sénégalais man suma man suma accès fii rek sénégalais yi tax mm-hmm. man euh, foo mu mënta toll rek mm-hmm. man sénégalais yi la mm-hmm. ma bëgg aussi dama leen bëgg lu ko raw mm-hmm. man je suis taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mm-hmm. dafa am lu ma gëm am na mooy doxee am fa may teg sama tànk am loo xamante ni que lu ma nit gën a soxla ma wàcc kook yow xool lu mu lay jëlee ndax àdduna moo dippee noonu tey doon toll foo xamante ni que il faut nga dal il faut nga xool déglu c'est important. à de parler ni ngay waxee ni euh, même bu dee xale bu ndaw sax dina ne sidaat mi ak euh, njiitam ya taxu koo demee noonu wala taxu na mu waroon rataxee rataxewul noonu. waaw mais man du damay euh, man du ma nit aussi boo xamante ni que damay forcer relation gis nga nit bu la bëggee dalay wan ni bëgg na la mais ni su la bëggulee wala moom lu la teel ci xolom la muy sentir rek la lay wan loolu nag du lu may taxaw di ko wax ci ay caméra wala di ko wax ci déedéet parce que àdduna moo dippee noonu du ñëpp la mën a bëgg du ñëpp noo la mën a bëgg du ñëpp noo la mën a digérer du ñëpp aussi noo la mën a jël def la si seen biir xool bi donc de ce fait que loolu dafa bokk ci àdduna et ñu nekk ñoo xamante ni que euh, ñu bëgg seen liggéey nekk ci rek di doxee noonu ak àdduna tamit di ko ñafe euh, non noonu rek la y a rien d'autre